bienvenue te dal nag jàmm Sene Info International lu gën a fës ci xibaar yi euh, lundi 20 novembre 2023 dañ koy commencer rek par euh, li nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko euh, ut na remplaçant tàbbi na ki nga xamante ne moom moo a remplacer à du PASTEF de ou de l'ex-PASTEF ki nga xamante moom mooy Bassirou Diomaye Faye moo ne nar a nekk candidat pour Euh, parti PASTEF pour l'élection présidentielle de 2024 donc euh, suñu sukkandikoo si euh, lu gën a fees si xibaar yi tey PASTEF Bassirou Diomaye Faye tey la ñuy commencé parrainage bi pour vraiment mun ko mun ko mun mun a représenter Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 mu rejoindre rek lu ñu doon wax plan B bi nga xamante ne waa PASTEF ñu ko doon bëgg a def donc ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye moo nar remplacer Ousmane Sonko candidat à l'élection présidentielle de l'ex-PASTEF pour la présidentielle de 2024 ñu ñëw encore si lu gën a fës si xibaar yi mu nekk projet de loi bi nga xamante ne euh, député yu bëri donc projet de loi boobu voté nañ ko démb à l' nationale ministre bi nga xamante ne moom mooy euh, ministre euh, Moustapha Ba def ci gëstu bu yaatu a yaatu donc nee nañ depuis 2014 ba tey budget du Sénégal dafa assez conséquent donc euh, ñu jeexalee rek si lamb bi nga xamante ne démb opposé na euh, ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers ak Sita démb la woon seen bëre bi mais kenn daanul mais sur décision arbitraire jox nañ ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers euh, victoire bi donc li lañ leen indi loon si lu gën a fes si xibaar yi si seen Info International merci beaucoup ñu leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlo bi